lan moo la tee julli ngay xale bu góor wallaahi ñàkk julli moom ku ko def mbooloo moo nekk yaa cay gën a torox ku mu neex nag xalaatal waxuma xasuma saagawuma waaye borom xel ngeen xalaat leen demal sa kër nga tëdd nelaw ñi bàyyi julli ñëpp ndax ñoo tane ci dëkk bi ku nekk xalaat ku ñemee wax nag waxal man moom je m'en tàmm naa ay saaga tàmm naa ñu may saaga waxtu wu nekk waaye bu dee saaga rek alhamdulilah ñi dul julli société boo dem ñoo fa gën a torox ah xalaat leen wala ma wax hmm? ah eh, bu ngoog xalaat leen ah xalaat leen yàlla da leen di toroxal képp ku bàyyi julli yaag animaux yi ñoo yem bal sax animaux yi ñoo lay tane animaux animal soxla na daal naaj dina ko tàng déedéet am na ay we yu mu doxe ku bàyyi julli def tànku neen fooy mujj sol ay kawas tegle tee ngaa soli daal yàlla da lay buggal te deewoo ko ku bàyyi julli nit ñi dañuy sol yére yu rafet paase ko génn poñewu nga dajale desitu yére yooyu jaxasoo ko dañ laa ñemewu la wax dof rek mais bu mag nga loolu mooy gis nga bàyyi jaamu yàlla ومن يهن الله فما له من مكرم والله يلا ترخل كان من لا تفعل كان ادم لوكو ген اجانا بن بكار بوكو في ген بن بكار بن لك لو نكو تري مو ген اجانا نيكون تي يرمني بو نيه خني خنيخ تي غيس nga بامو ديفه بكار بوبو سوترام دا خاويكو لان موتاخ soo defee bàkkaar libaasu taqwa day dem te xam nga ni libaasu taqwa zalika xayr kon góor góorgóorlu looy daw